maaleykum ngi lay ziare bu baax. ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax Adama. Euh, alhamdulilah sëñ Xadim. jërëjëf di fàttali également euh, euh, fu mu toll nii <laughs> xam naa ne yéen am ngeen ci wàllu pour leeral askan bi ci jafe-jafe yi nga xool yenn sax ci ay mbir yoo xam ne jàpp nañ ne leerul ci li soxal mbirum Ousmane Sonko bi mu demee ci tribunal bu grande instance bu diwaanu Ziguinchor foofee amoon na fa ndam mu ñëwaat également ci tribunal bu hors classe bu diwaanu Dakar waaye dañuy gis ne par rapport ak l' applicabilité ci yenn ci ay de justice dafa am tolof tolof est-ce que tey DGE am na prérogative bu ñàkk jëfee ab décision boo xam ne dafa bay ko euh, ci wàllum yoon. waaw xam nga DGE bala muy mën a artu si mbir mi. Mhm. donc il faut que kon euh, affaire bi ñu vidé ko ba nga xam ne toutes les voies de recours sont épuisées. d' accord Ousmane Sonko am na ndam si tribunal Ziguinchor bi. bi ñu ñëwee si tribunal d' instance de Dakar mu confirmer décision bi. waane na ngeen jàpp ne état du Sénégal aussi à compter de la notification de la décision am na délai boo xam ne ni fukki fan pour mën a saisir cour suprême. Mhm. léegi nag si kaw loolu cour suprême fekkee dafa ànd ak dogal bi pour euh, tribunal d'instance Dakar joxe wala ànd seeg moom foofu dañuy ndégandiku si li nga xam ne moom lay cour suprême wax bu ko defee DGE suñ ko notifier décision bi ah mu mën set euh, seet moom it li nga xam ne ni moom la ko yoon wax. mais instant yi donc am na recours boo xam ne nii donc c' est de suspendre décision bi kon DG moom mënul àtt si mbir moomu. kon le recours est suspensif. Euh, donc euh, pas le recours c' la décision elle-même. ok c' la décision qui est suspensive parce qu'il y a toujours possibilité de former un recours en cassation devant la Cour suprême. mais kon an article 47 bu code électoral bi wax que ne lépp loo xam ne mbirum. Euh, électorale dañ ko war a ci maanaam c'est exécutoire. waaw mais exécution ban koy def euh, balay euh, ngay wax article quarante sept du code électoral mais il faut que contentieux ñu vidé ko il faut que toutes les voies de recours soient koo xam ne nii ñëw nga instance ñu daan la mais am nga possibilité au moins se pourvoir en cassation li tribunal Dakar wax état du Sénégal bu si àndul mën na saisir cour suprême léegi nag décision boobu nag mun mënuñu koy exécuter d'office il faut ñoo xaar décision bi nga xam ne cour suprême la jógee bu boobaa nag ça dépend de la confirmation ou bien de l'infirmation donc pour ñu mën a artu si ngir mi nga xam ne ko électoral moom la wax. ok kon daal DG mu ngi ci rôlam daal. ah. ma ne kon DG mu ngi ci rôlam. waaw non DG loolu du rôlam DG day xaar ñu ko décision bi. Mhm. wane ne Ousmane Sonko ko war na ko mën a intégré si liste élect ci euh, euh, war na mën a bokk si joŋante bi. war ko jox liste parrainage am. waaw mais tant que loolu amul DGE mënul àttu si mbir mi parce que moom du moom mooy àtte. ok mais moom day xool ndax candidat bi remplir na conditions yi rek mu mën a donc kii si sukkandiku si mbir moomu. ok mais mais mais bi nga xam ne juste saa si fa jëloon na ko mais Sénat dafa joxoon une injonction ci DGE à ce que mu jébal fils de parrainage Ousmane Sonko est-ce que ci par rapport ak cette cas de mesure. quand même mën nañu wax ne mbir mi c'est suspensif. kan moo joxoon injonction tribunal kii DGE. mais mais Sénat ànd woon na ci mbir mi nee nañ euh, DGE li mu def teewul ko ci yoon dafa war a jébal fils de Payna Ousmane Sonko. waaw mais Sénat mënul jox benn injonction DGE. ah maanaam lépp loo xam ni jógewul ci justice. non lépp loo xam ni jógewul ci justice parce que affaire affaire euh, pénal la donc affaire pénal loo xam ne mi ngi si mbiru yoon te jeexagul DG mënagu si art il faut que mbir mi jeex parce que dama ne la bi ñu demee tribunal Ziguinchor ba nga xam ne jox na dëgg ousman Sonko ne nan ko delloo ay axam ak yelleefam état du Sénégal ànd si par le biais donc de son agent judiciaire mu saisir tribunal de Dakar euh, cour suprême cour suprême bi mu cassé affaire bi renvoyé ko Dakar. Dakar bi mu ñëwee confirmé. Mhm. état du Sénégal am na dix jours yoo xam ne nii à compter la notification la décision moom it mu ne d' accord ma si lii tribunal Dakar àtte ma dem si cour suprême. mais y a question de timing loolu. y a une question pour pour Ousmane Sonko. waaw ouais, mais le temps de la justice n' est pas le temps des hommes loolu moom justice yoonam nekkul si moom day respecter procédure bi rek du question ne dañuy xool ne ah le la donc temps bi kat gàtt na trop la justice moom. donc a toujours sa manière de fonctionner il faut respecter les délais ok c'est okay. comme ça que fonctionne la justice ok léegi léegi léegi daaf dans tout ça l'autonomisation du fichier parce que keroog Ayib Daffé eh, bi mu demee DG e, dañu ko yebal mu dem daaf parce que ñoom ñoo chargé wu pour dugal ak génnee loolu it euh, comme ne mbir mi duñ ko mën appliquer moom ba du bëri jafe-jafe waaw dina am jafe-jafe dina am jafe-jafe xam nga ne même mandataire am bu demee daaf sukkandiku si décision bee ne ah na ngeen ñu jox suñu fiche de parrainage daf mënu ko tëb joxee ko parce que mbir mi jeexagul ñoom li nu war a def mooy xaarandiku xaarandiku ba nga xam ne nii tey ah cour suprême que at na si mbir mi ndakam état bi Sénégal donc lank na décision bi tribunal def loolu nag buñ si jógee nag bu boobaa cour suprême bu leen joxee dëgg nag ànd ñoom donc dana notifier décision bi mais tant loolu jeexul mënuñu précipité del dem te am na ndam rek dal di kii mbir mi des na. ok léegi li expert Ndiaga Sylla wax nag maanaam ci bërëb bu ñu dem ñu bañ leen ñu notifié ñu dal di ko noté par huissier su boobaa ñu yóbbu ko conseil constitutionnel yow am nga sens que ne bu ñu ko defee dina mën a jàllam. non loolu lépp du du mën a jàll parce que Ousmane Sonko dafa am lu ko gàllankoor. muy lan li ko gàllankoor mooy li ko gàllankoor mooy li nga xam ne condamnation bi. compte maximum condamnation nga xam ne. waaw contumace bi parce que loolu dafa nekk gàllankoor boo xam ne ba léegi euh, mi ngi tege si ndoddam. mais juge bi mais juge Ismaïla juge Ismaïla Racine Thior nee na contumace amul fi y a l'article 307 du code de tax contumace am aussi alors que ça a été par le tribunal contumace am na parce que Ousmane Sonko liñ ko jàppee ça n'a rien à voir ak contumace bi liñ ko jàppee donc violence. donc fait sur un donc un agent de la gendarmerie. mais lu donc ay vol de portable ainsi de suite maanaam seen maanaam sëñ Khadim. waaw dafa am ñaari mbir yoo xam ne dafa bokkut Ousmane Sonko li nga ko téye ne kaso nii bokkut a contumax bi du loolu lañ ko arrêté. mais 307 du code de procédure pénale lan la wax. waaw euh, euh, lan la wax si mbir mi. Hmm, uh-huh. uh-huh. allo oui. waaw. Uh-huh. mais article 307 du code du euh, code du code de procédure pénale li mu wax c'est tellement clair mooy nit ku ñu àtte par contumace suñu la suñu la tegee loxo dafay anéantir en plein droit li nga xam ne moo di le jugement. non pas anéantir de plein droit. c'est-à-dire que faut pas qu'on fasse faut pas qu'on fasse un amalgame. Mm-hmm. dama ne contumace yi ba léegi arrêté wuñ si Ousmane Sonko. parce que de deux choses l'une léegi lan mooy contumace li ko doon anéantir ma ne contumace li ko doon anéantir. oui lorsque Ousmane Sonko se livrait à la donc euh, comment encore. à la euh, se conçait prisonnier. oui bu conçu woon prisonnier de son gré kooku sa anéanti ou bien bés bi nga xam ne ni tey gars yi arrêté woon nañ ko sa anéanti mais Ousmane Sonko li mu ko yóbbee kaso du contumace bi. léegi lan parce que keroog bu mu jógee julli. lan mooy contumace euh, docteur luy contumace exactement. waaw contumace maanaam moom atte nan ko si li nga xam ne teewut. waaw jot na convocation et avocat jot nañ convocation taxaw nañ tribunal benn partie bi ñëwul maanaam procureur moom euh, euh, ministère public représentant mi ngi fi mais Ousmane ko ñëwul si kaw loolu nag si nañ ko daan maanaam donc atte koo xam ne nii condamné ko alors que moom ñëwul si tribunal bi. si sañ-sañam loolu mooy jugement par contumace. kon daa yow lu juge Ziguinchor àtte ak bu Dakar ko ànduloo ci àtte bi su ma la déggee. non juge Ziguinchor bi li mu àtte moom motif yu leer la wax. oui moom motif yu leer la wax maanaam moom gis na li nga xam ne nii ay irrégularité la ba tax moom mu jël décision boo xam ne nii ne Ousmane Sonko dañ ko war a donc joxaat ay axam ak yelleefam waaw mais loolu mu loolu mu àtte état du Sénégal am na droit ne d'accord ma si te loolu la def devant la cour suprême bi mu ko defee cour suprême lu tax cour suprême confirme décision boobu Ziguinchor da ko kase yaa may dégg. Mm-hmm. daf ko kase lu tax àndut ak moom moom it xañ na am na gis-gis boo xam ne nii ak kee bokkul waroona bi mu ko kase mu yóbbu ko Dakar. Dakar bi mu ñëwee confirmer lii kii Ziguinchor wax. waaw ça ne veut pas dire que Ousmane Sonko ko dañ ko war a dugal dañ ko war a jox ak xam yelleefam parce que état du Sénégal moom it mën na toog mu ne d' accord ma si lii waa Dakar atte damay demaat cour suprême. ok kon comme damay demaat cour suprême que décision bi ça ne va être exécutoire d' office il faut que ñu négandiku ba cour suprême ñu saisir ko mu aar ko si mbir mi mais jeexagut. ok. léegi euh, c'est vrai jeexagul léegi l'affaire Mame Mbaye Niang certainement ñu jeexale ko foofu euh, mi war nañ ko vider le 4 euh, certainement ñu bëri jàpp ne sax moo gën a compliqué ci Ousmane Sonko peut-être si la peine bu ñu ko confirmer il risque d'être radié pendant cinq ans ci fichier électoral bi waaw loolu moom lu leer na loolu moom lu leer na parce que condamné woon mhm. waaw kon ay avocat am dem na Cour suprême Cour suprême le 4 janvier war nañ ko vider ah léegi nag cour suprême mooy xool ndax jugement bi da koy infirmer wala da koy confirmer bu ko confirmer nag Ousmane Sonko day perte ay donc euh, donc day perte ay axam ak yelleefam loolu c'est tout à fait normal waaw moo tax ma ne la mbir mi dafa nekk loo xam ne ni négandiku da si am lépp daal mi ngi si cour suprême maanaam eh, ñu toog di xaar la nga xam ne nii moom moom lay dogal si mbir mi. Mm-hmm. ok ma bàyyi la sama naataango lan may laaj Mor. Euh, kañ la ab di di di bañ a suspensif. nee na kañ la ab décision de justice di bañ suspensif. kañ la décision de justice. di bañ a suspensif. waa fekkee ki nga xam ne ni moom am na ay recours yu mu war a def defu ko dans le délai donc ça devient exécutoire. ok. waaw ki war a contester décision am na délai de contestation bu respect donc délai yi bu passé mais le recours sera forclos cest sa dire que la décision devient exécutoire mais ki nga xam ne yoon may na la donc sañ-sañ yow nga mën a contester décision bu boobaa décision bi de dañ koy suspendre donc jusqu'à donc ce que la haute juridiction se prononce sur l'affaire. ok kon en matière électorale même les mm-hmm. décisions ne sont pas suspensives. oui kon nee na matière électorale les décisions ne sont pas suspensives comme l'article 47 du code électoral nu mu ko waxee. non bokkul sax bokkul parce que lii dafa nekk kii boo xam mbiru pénal la. ok mbiru pénal la il faut que ki nga xam ne nii tey ses droits a menacés donc il faut ñu saytu loolu ba pare pour mën a nag jéem a dem si li nga xam ne moom la code électoral wax ndax mën na bokk wala mënta bokk. ok kon daal kon daal si yow la déggee mooy la candidature d'Ousmane Sonko reste incertaine pour ces élections présidentielles. loolu kay lu leer la loolu moom lu leer la parce que fi mu nekk non seulement dafa am deux affaires pendantes. Mhm. donc devant la justice. ok bi nga xam ne première affaire bi nga xam se c'est pendant affaire Mbaye Mbaye Niang ñi nga xaar Cour suprême àtte si. beneen bi nga xam ne nii moom moo ko opposé woon ak euh, li nga xam moo ko yóbbu kaso nii loolu aussi beneen mbir Mm-hmm. waaye nag affaire mbay ma euh, Mame Mbaye Niang bi nag moo gën a compliqué. léegi nag 4 juin bi ñi nga xam li nga xam ne cour suprême moom dogal boobu lay jël ndax day confirmer décision bi wala ndax da koy infirmer bu ko confirmer maanaam Ousmane Sonko mu mënatul bokk. si joŋante yi. ok le cas de Bassirou Diomaye Faye nag ñu ngi wax que ne képp ku bokkoon ci Pastef war la doon candidat est-ce que loolu la texte yi waxam. non xam nga Bassirou Diomaye Faye dafa nekk. si téye ndëgë ndëgëndiku moom it ba léegi waxagul dara si ay mbiram mhm. kon même suñu ne moom mooy numéro deux du parti ah ba léegi bala ñuy wax ne mën na bokk munta bokk il faut ko yoon saytu ay mbiram ba pare boo ko saytuwul nag mais ba léegi mi ngi kaso mënul bokk si kii bi parce que mënuñu jël koo xam ne ni day mi ngi attendi amul condamnation définitive non kon pas condamnation définitive dama ne tey tey ndéggandiku la am. mais y a une présomption d'innocence. mais présomption d'innocence mooy lan maanaam nit ki nanu respecté ay axam ak yelleefam loolu lay présomption d'innocence. am njort bu rafet. waaw nanu respecté ay axam ak yelleefam waaw loolu mooy présomption d'innocence hmm. waaw. loolu ba léegi yoon mi ngi si loolu respecté na lépp li nga xam ne nii sàmm lépp li nga xam mooy a axam ak yelleefam waaye Bassirou Diomaye Faye dafa am te négandiku ba il faut que nag ñu jugé ko si kaw jugement boobu nag la ñuy xool ndax moom mën na bokk wala mënut a bokk mais tant que leeralul mbiram nanu jàpp ne moom it wax dëgg yàlla mun mënagul bokk si ndir yi mais maître maître maître radiation am tant que condamnation définitive amul allo nee na radiation mënta am tant que condamnation définitive amul loolu li ñu mën a dégg la de. non radiation mu mënta am parce que bala ngay radier nit day fekk ne yoon dàq na ko ne mënut a bokk mënul nekk ci liste yi mais ses droits sont suspensifs. ah bon. waaw parce que mënagul bokk mën na mi ngi ci liste yi mais pour mu bokk tey li nga xam ne yoon moom la ko téye il faut que ñu seetal ko. ah mais gis nañu il faut ñu juger ko tant que juge waa allo ay nit ñi jàpp pare inscrire si ay liste ñu gagné ñu génne leen prison <laughs> loolu it naka nga ñu ko mën a expliquer euh, euh, euh, nga ne. ma ne gis nañu fi ay nit ñu newoon prison ñu boole leen ci ay liste ñu doon député de. ñu doon député. député. waaw loolu mën na ci fekkee condamnation bi nekk na loo xam ne nii matul si six mois mais su la condamné six mois ferme kay yoon mënatul nu nga bokk. ok mais condamnation amagul nag dans cette affaire. waaw moom laa lay wax moo tax ma ne Bassirou Diomaye Faye ba léegi kenn condamné gu ko. oui dafa am tey néegu niku. Hmm. léegi nag moo il faut ñu xaar tribunal li nga xam ne nii bu saytoo mbiram ndax dañ koy daan wala dañ koy bàyyi mu dem suñ ko bàyyi mu dem nag bu boobaa nag am na sañ-sañ bopp comme ñëpp. ok jërëjëf merci beaucoup Adama maa ngi lay jaajëfal baax. Adama Diouf juriste de formation jërëjëf sëñ Khadim jaajëf merci en tout cas Dakar Feeling yëpp ak seen yi. merci merci beaucoup jërëjëf juriste merci en tout cas ñu ngi koy ñu ngi koy jaajëfal bu baax soxna Amina. voilà euh, xam naa indi na leeral waaye leeral it xam naa ne. <laughs> mu indi yenn leeral <laughs> yoo xamante ni peut-être que. <laughs> Euh, dina dina xaw a jur coow tuuti. parce que waa ñu ci bari ñoo ngi jàpp que ni condamnation définitive bu amee rek ci la radiation war a mën a taxaw waaye moom nag euh, dafa mel ni boobu sax am na lu mu ci confirmé waaye am na yenn yoo xamante ni nag que après war na ci mën a